mbirum procès président Birima Mangara setantal xam ne ab sénégalais nga te lim la wax doy na la li nga gis ci moom doy na la ndax nag bu ñu fàtte ne président Birima Mangara Russie mu président Macky Sall bu njëkk bi daf ko àndoon ak moom ba démissionnel boppam te kenn mënu ko rapproché ci dara dàquñu ko yuuxoowuñu ko sànniwuñu ko te tey lañ ko gën a soxla moom moo bind lettre démission démissionné na ci boppam mësta am carte APR mësta am carte benn parti politique ba gëm boppam taxawal parti boo xamante ne nii nun ñii nga xamante ne ñoo def ab géew ànd ak moom nii danoo ànd ak moom ngir am yéene yóbbu ko palais 2024 teg ko fa ànd ak moom liggéey bi te danoo am yéene yi keroog ñu naan wiiw président Birima Mangara fii ci jànnatul maxwaa lay moo daar yi dar ko ngeen dugg ci ay kaar ànd ak moom ba biir palais loolu mooy dëgg kon na ngeen am fulla ak fayda ju tool ne nii ngeen jële parrainage yii kenn ku nekk samp ci fulla ak fayda mu jaral la yàq say nelaw yàq sa tëraay nga dox ci ñàkk ci say paas def ci lépp te kenn koo xamante ne def na lii koo xam ne am na ci ñoo xam ne gisaguñ président Birima sax xamuñu kuy Birima teguñu ko bët ci liggéeyub Serigne Abdou Karim Mbacké rek ak kóoluteefam ak ànd ak ñoom ak socialam ci lañ ko gëme Birima Mangara prochain loolu mooy dëgg kon fi may daaneele Moodu nga jéggal ma li xaj cin li duuf ci nag bi xajul ci cin lit waaye wala fi dañ xaj na ca dañ ko jotul defandoo ndax ci lay mujj Euh, fi may daaneele rek mooy képp koo xamante ni yaa ngi ci plateforme président Birima Mangara 2024 sëb liggéey agsi na ci man bi mu agsee ci man it yéen ñëpp na seen xel dal ci ne Bassirou Faye ngi nii di dégg li may wax danañ ma defal liste bi tiireel ma ko jox ma ko am nañ fu ñuy dajee danaa ne ko fa fang kenn ku nekk danga xam ne la nga defoon agsi na ci sëñ Abdou Karim jërë ngeen jëf. gis ngeen buñ naxam ko fekk àgguñu si mën a daje jox ñaari nit ñu wax suñu kàddu mu tasaaroo amaguñ organisation. day fekk ñu koy waxtaanee jërëjëf. léegi li ci am solo mooy li fi nekkoon depuis 1960 mooy li ñu fi bëgg a defaat rek te ñu dañu bëgg changement politique compétence la. am na ñoo xam ne buñ toogul ci kanam taabal yi dañuy jàpp ne existé wul am ñoo xam ne buñ waxul dañuy jàpp ne existé wul loolu politique de politique compétence la Modou Lo dafa wax lu am solo Modou Lo mbër man du ma seetaan làmb lu bëri mais damay déglu ay wax yu am solo Modou loo def ne gàllaaj yi mu doon takk dem na ba xam ne entraîné ba yëg ne taxaw nga physiquement nee na boo yëgee ne taxaw nga physiquement da ngay yëg ne taxaw nga conscience sa conscience day dal sa xel xam ne ngay jàkkaar mënu la mais compétence boo ko xamee doo xëccoo compétence mooy dara man man damaa ñeme adversaire ndax dama am compétence man ku ma galgal ci politique wéeru la nga daal kenn dalewul kon ma bëgg ñun ñu respecté te ñun xam ne ñun mënuñu ne dañuy indi ay changement ba noppi di xëccoo yoo xam ne amul solo li ñu wuti xam ngeen ko li ñu wuti état la état maanaam kenn ku nekk ñun man nga cee jariñu Sénégal yëpp jariñu ci luñ gisante état dafa yaatu xam nga lu jël xëccoo ñu ne tey liste bi ñëw na Cheikh Fall Cheikh Fall wala Ibrahima Samb Ibrahima bëgg a nekk député pourquoi pas du nekk député liggéey na fi lu fi nekk wala ñu ne conseil départemental nga ne bëgg a nekk président waaye ay wax ak toog ci kanam mais nañu sérieux dañuy remercier bu baax baax équipe bi ñu àndaloon parce que ànd ànduñu woon nag ay coomo nag ay de maîtrise lañ àndaloon am na boo yoo xam ne am nañ licence ba ñu ngi ci maîtrise am na ñoo xam ne ne ñu ngi faculté informatique kon ñoo ñu àndoon ak ñun ci liggéey bi ñu ngi nii suñ ginnaaw ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ay jeunes yu dynamique lañ te ay intellectuel lañ te mën nañoo yor réew mi ëllëg parce que bu dee jàng ña nga ca te ñu góor góorgóorlu li tax ñu tànn Birima Mangara ñoom suñ continuer ci dynamique boobu incha allah mën nañoo yor réew ci loolu naa dañ koy remettre. le président Ibra Sall ci turu sëñ Abdou Karim sëriñ Abdou Karim mën nañ ne moom mooy jëlaat parrainage bi jox ko le président Ibra Sall Ibra Sall joxal ko ko le président Birima Mangara parce que moom politique gu doon comme que yàlla dogal na biroom la jëloon fi muy suturloo ngeen ko fay dajalee bu ko fa dajalee ba tollu fii nag mën na koo jox ci politiciens yi kenn ñoom ñu joxe ko kon looloo ndox mu jox ko la président Ibra Sall pour mu jàllaleel ko la ci Birima Mangara yàlla dogal na ne waa Touba liñ dajale ci parrainage li nga xam ne ne ci bureau sëñ Abdou Karim la ñëw toll na ci dix-huit mille soixante-sept parrain yoo xam ne ne ci bureau sëñ Abdou Karim la ñëw ñoo ko récolté li nga xam ne aussi ba tey ci commune bu Mbacké la nekk loolu ma wax rek commune Touba Mosquée la commune bu Mbacké la nekk toll na ci deux mille li nga xam ne ne ci autre commune yi nekk ci Sénégal la bokk parce que Sénégal am réew la te Touba am réew la laa bëgg a wax Touba ku nekk a ngi fi kon ñoom liñ dajale ci ñeneen yi nga xam ne yeneen communes yi nga xam ne ñi ngi ci biir Sénégal la mi ngi toll ci huit cent soixante boo boolee ci bi yëpp ak ñi nga xam ne ne comme ñu ko waxee ko mel ni soxna Seynabou Mbacké yim yóbbu au niveau de Dakar ak ñeneen ak ñeneen ñu yóbbu au niveau de Dakar yëpp ñu ko boolee mi ngi ci toll trente-cinq mille 308 la Touba collecté jox ko la président Birima Mangara ci biir 35000 yooyu 31000 yi 31000 yi 304 commune bu Touba mosquée kese la yoruñuy million waaye yor nañ loo xam ne kat candidat buñ ko jox le soir du 24 mu mën a noyyi ci Sénégal te lii yamut Touba aussi parce que ñu ngi jokkoo ak Mohamed mi nga xam ne moom moo yor parrainage bi au niveau. de la coalition mi ngi ñuy xamal ne liñ am Touba naam ndax mooy base bi moo war a ëpp fépp mais lépp luñ ñu laajoon ci raison am nañ la maximum kon dañuy lancer appel le président Macky Sall moom mbir mi génn na ci na arbitré normal parce que mbir mii kat ñun amatul lu ñu war a tée bu dee xam-xam bi mi ngi fi bu dee parrainage yi mën na sëkk te sell na bu dee costion bi it am nañ ko waxuma ma rek waaye yéen ñii rek ku làmb sa nga fa ka mën nga ñoo dajale 30 millions joxe ko kon amul lenn lu ñu mën a téye kon la buñ demee ci conseil constitutionnel conseil constitutionnel nañu bàyyi la président Birima Mangara mu mën a dem bokk ci candidat yi ndax ñu mën ko jox réew mi le soir du 24 incha allah mais beneen bi may mujjee nag mooy combat bi day soog a ñun buñ jugee fii li war a def. mooy nañ fexe centre de vote yi nekk ci dëkk bi yëpp ñu am fa représentant kon léegi lañ koy door comme responsable yi nekk fi yëpp seen tour mi ngi fi seen numéro téléphone a ngi fi fas yéene ànd ak yéen liggéey bi ba bépp bureau de bu nekk ci Touba ñu am fa représentant duñ dem fenn duñ fa fekk nitu Birima Mangara je vous remercie. les responsables yi nga xam ne ñoo teew fii dañ a baax gi am na fu mu tàmbali mais amul fu mu yem parce que. bu fekkee da ngeen a bokkoon am ñu bari ñoo xam ne dañoo nekkoon coalition benn bokk yaakaar ñeneen ñi nekk dans d'autres partis mais ku nangoo bàyyi donc nguur dem na man damay dem ci loo xam ne dara nekk fa kooku jom ak engagement ak pas-pas moo ko yóbbu ci loola mais fekkoon na ab xaalis wala am loo xam ne da koy mos kon mu toog ci parti au pouvoir mais ñi nekk fii ñëpp dañoo leen dañ dañoo gedd la nga xam ñoom ñoom lañ yore ñu ngi leen di ñaanal foofu ñu nekk mais aussi ñun itam nañ ñu bàyyi ñu nekk suñu transitoire dégg nga làmb ji ku man bëre ku man daan sa morom ñu nekk ay at ñu nekk ay adversaires mais des ennemis au soir du cinq février la coalition UDP Birame Mangara gagne hautement les élections ici dans le département de Mbacké ñëw ñu félicité ñu avec 35 000. 308 parrains 35 par parrains parce que ñu ngi commencé ñu ngi commencé woon parrainage bi depuis le 28 octobre 2023 le 28 octobre 2023 la ñu commencé woon suñu parrainage ba tey le 30 11 2023 y' a un lot deux lot trois lot quatre lot yoo xam ne dem nañ dernier lot bi muy le 30 11 2023 moo nekk nii mais bi ñu defee jiw bi lépp. dégg nga ak lance pour le département ñu ngi nekk 37000 personnes yu yoo xam yéen ñi yéen a ko liggéey yéen ko liggéey dañ ngeen ko liggéey ngeen jox am équipe boo xam ne ña ko doon saytu ndax c'est rare un candidat parrainé mu laaj la photocopie carte d'identité yéen ñi ñëpp kenn ku ci bu fiis boole nga ci 10 photocopie carte d'identité 10 photocopie carte d'identité comme lii. ñun du duñ jàmm rek la doon fiche ñu con ñu contenter de cette fiche pour ne est-ce que fiche c'est fiable wala est-ce que fiche amul kii dégg nga dañ koy trier par photocopie carte d'identité pour la seule circonscription de Touba Mosquée yii yëpp Touba Mosquée la amul feneen foo xam ne ni mën nañu ko yoo xam ne bokkul kii kon gàcce ngaalaama yéen nga xam ne yéen koy liggéey. ñu bëgg nag def nañ lu am solo pare na mais trente cinq mille trois cent mille pare yi il faut ñu transformer que trente cinq mille trois cent mille pare yi dañuy jàpp ne suñu électeur lañu mais ça parce que man li ma gëm mooy le conseil constitutionnel. mënta wax a wax a wax ba filtré ba téye le président Birima Mangara parce que bu dee minimum bi di six pour cent de la population électorale mu représente quarante quatre mille deux cent trente et un rek boo jël trente cinq mille trois cent mille mooy quarante quatre mille daanaka ay neuf mille moo ci des kon bi mat na minimum bi mat nga jël le maximum zero virgule huit pour cent mu nekk cinquante huit mille neuf cent quinze. déjà on a un lot soixante-dix soixante-dix mille parrains soixante-dix mille parrains bu ñu ko dee filtre di ko filtre di ko filtre mënuñoo bon a bon a bon yées yi yées ba amuñu le minimum kon gardons l'espoir que à de la publication des candidats le 20 janvier Merci. notre candidat le président Birima Mangay sera parmi les candidats potentiels pour briguer le suffrage des Sénégalais maa ngi di jaajëfal bu